Nous ndaje bi mooy campagne pour faire tout la bonne économie xaalis bu bon jóge ci wàllu criminalité xaalis bu bon jóge ci wàllu détournement xaalis bu bon jóge ci wàllu càcc xaalis bu bon jóge ci wàllu escroquerie donc bépp infraction boo xam ne dafay générer dafay dafay euh, euh, euh, dajale xaalis pour ñu bëgg ko injecté économie normale bi donc ñun loolu moo tax ñu ñu jóg suñu suñu xeexu tay bi di ko continuer moo tax tey jii ñu ñëw ñu ñëw université à collaborer ak fédération des amicales des étudiants de Bignona pour euh, parce que nous sommes suñu premier partenaire ci université bi dañ continuer également dans les autres universités mais également ak yeneen secteurs. secteur donc dañu wax ak étudiants yi nekk Bambey wax ak étudiants yi à Saint-Louis nous ne leen waratuñu rek di confiner wu ci ci biir université dañoo war a génn ci monde extérieur bi parce que boo xoolee tey li ñu wër yëpp kenn warta noppi euh, sànq wax naa ko présentation si on regarde xoolee ñetti pays yi nga xam ne ñoo gën wu ci Afrique de l'Ouest le terrorisme muy Mali muy Niger muy muy muy Burkina Faso boo leen xoolee nga jël indice de développement humain nous nga ca ndàdde nga jël indi nga jël indi li wax indice de corruption bi xam transparence yi génnee ña nga ca ndàdd ba ña ca zone rouge ba nga jël également euh, euh, euh, lépp lu inégalité ñoom ña nga ca ña nga ña nga ca biir te boo xoolee dëkk yooyu dëkk riche lañ euh, wax wax naa ko sank ci walu ci walu or bi nga dem tay lu melni Burkina Faso ñu ngi produire en 2017 12 12 amna nañ 12 mines ñu ngi produire lu toll ci ci ci ñen fukki tonnes ak lu ak lu ak lu ëpp également ci walu ci walu ci walu ci walu or nga dem Niger la même chose nga dem également Burkina nga dem Mali la même chose tay yo dëkk yoy non di produire richesse te richesse mënu ci dundu di gëna dugg ci wàllu pauvreté di gëna dugg ci wàllu insécurité fay jar également intellectuel de façon globale citoyen citoyen de façon globale surtout étudiants yi jël seen walu ci xex bi mobiliser wu pour interpeller le gouvernement pour arrêter les ñuy flux financier illicite te loolu commencé avec ci intellectuels étudiants yi dinañ également également ci jeunesse en profondeur parce que nous nañ également avec euh, i 814 mu nekk rappeur produit ben ben ben, ben morceau déjà compte YouTube am avons toll ci 000 euh, euh, personnes qui vidéo bi ak yeneen activité une xam avec Presby, def ak presse bi avons collaboré avec ak presse bi muy pour gën tasse informations. bi donc nous avons fait loolu mooy nous au niveau de l'université pour askan

terrorisme mi ngi dox mi ngi gën a mi ngi gën a ay jéego jamono bi koy yàq pauvreté bi mi ngi gën a di di di di di yokk donc moo tax ñu ne tey fokk ñu ñëw tey waxtaan ak étudiants yi gën a yokk suñu jéego. waaw xeex bi fi mu toll mooy boo flux financier illicite maanaam secteur boo dem rek dafa am. télécommunication nos confrère libération bi nañ ko bi passé télécommunication mi ngi fa ci wal nap mi ngi fa ci wal agriculture xoolal débat tay débat wu entre euh, jël na semence jëlul semence d'ailleurs bokkon ci li wax forum civil di interpeller à nouveau le président de la République parce que lepp lo xamna nek na donnée agricole mom am na ko képp ko xamna nek dañ wax na yow gros producteur nga te nga bénéficier wu ci ci ci semence yooyu mu nek dugub mu nek mbokk wala mu nek gerte mom xam na ko am na information bi te ñoñu bo xoolee ba xol ñoñu bayu ñu bàyyee nañu